aywa Fatou Kiné fan la ñu jëmaat. Euh, fu ñu jëmaat rek euh, dañuy koy daal di dooreewaat euh, ni ñu ko defee woon sànq ci réewum Gambie ñu nekk nag ci càppaandaw gi ñeel woteek faluk njiitu réew mi ñu dëkkmal benn ay bis moo des kon ci wote boobu ñu ngi ci campagne bi candidat yi nag juróom benn lañu wër nanu ndomba dëkk ba di Gambie ba ñu noppee nag delsiwaat nañu ca péyum réew ma di Banjul ngir nag def rek seeni campagne yu mujj président sortant boobu di Adama Adama Barrow ak euh, rivalam boobu nekkoon euh, njiitu jëwrin nekkoon avocat ñu gën ko xam ci Ousseynou euh, Darbo ñoom nag jàpp nañu ñooy candidat yu gën a dajale ay nit foofee ca Gambie waaye nag li yees daal li nu nemmeeku rek ci fan yi mooy cour de justice bu Banjul nag dafa jox dëgg ñaari candidat yoo xamante ni dañu leen a téye woon commission électorale ba moom nag moo sàkk woon daal ñu daal di ñaari candidat yooyu waaye nag ëttu attekaay boobee ca Banjul euh, tey jox na leen dëgg kon may leen rek euh, ñoom it ñu mën a samp seenub ndënd euh, ki nekkoon président bu Guinée di Alpha Condé nag fi ne yóbbu nañu ko nee ñu ca kër soxnaam gannaaw nag bu mu nekkee woon rek ci loxoy soldat sax moom moomee di Alpha Condé ci fàttali juróomi fan ci weeru septembre nag ci lañ ko daal di jëlee woon ca góor ga militaire yi nag daldi koy nëbboon daanaka jant ba waaye nag nee ñu fa ñu ko tegoon fu wóor la tey nag mu mel ni daal nañ ko jox rek cëram muy cëru euh, président moom moomee nag di Alpha euh, Condé ñuy waajal nag ndajëb euh, CEDEAO bi yàggul dara li ci des matul sax fukki fan mu mel ni loole danu ko def rek ngir nag daal di wan njiital CEDEAO yi ni amul benn fitna bu am ca Conakry ñu wax ca Chine mi nga xamante ne nag nee ñu ah, danoo samp ay ah, caméra de reconnaissance faciale la ñu koy wax ak it ah, ay xeeti façon yoo xamante ne dafay tax rek képp koo xamante ne nag taskatub xabaar nga wala boog sax nga nekk étudiant nekk ca biir réew ma ba te dëkkoo fa ñu mën a xam li ngay dox li ngay wax lépp nag mu mel ni ab surveillance bu ñoŋ la agence Reuters moom moo ñu ko xamle ndax neenu système boobu nag ñi ngi ko teg rek fa ñu naan xenaan mu nekk système boo xamante ne daanaka système bu doy waar la euh, ci wàllu euh, surveillance ñu bari sax ñu ko doon laam-laamee waaye dafa mel ni li nit ñi doon xel ñaar daal tey mujj nañu ko dëggal foofee ca Chine ndax kilifa ya euh, xam ngeen ni dañoo yàgg may gët taskatu xabaar yi ak ñi nga xamante ne nii ay këru taskatu xabaar lañu ba ci étudians yi nga xamante ne fekk ñu baax ca réew ma dañu koy daal di jeexalee ak kii ñu gën a xam nag ci Joséphine Baker ñeent fukki at ak juróom-benn gannaaw bu mu faatoo nag tey jii dana daal di dugg fa ñu naan Panthéon ko ca euh, Paris la xam ngeen ni mooy monument bu mag boobu Ibou Diouf mi yëngu ci wàllu caada dina ci xam dara euh, foofe nag bari na ñoo xamante ne dañu leen fay indi gannaaw bu ñu euh, faatoo lu yàgg waaye nag ay nit lañu ñoo xamante ne ñu ñuy ràññee la ku ci mel ni soxna sii nag moom la ñu koo jàppee rek mooy artiste la waaye tamit ku daan xeex la bañkat la ci lépp loo xamante ne dëppawul ak yoon nekkoon ab militante bu dëggu am na nag ci wayam li ñu duppee me revoilà boobu tey daal dana doon ab bàq boo xamante ne daan ko déggaat bu 17h30 jotee ci bu ñu koy dugal rek ca Panthéon di Fatih monument bu mag boobu ca Paris wax naa ko léegi. Mm. Euh, tey boo xoolee sax ci wàllu caada am na ci ay euh, ñoo xamante ni ay bindkat la ñu woon ñu ràññee. Mm. ay boromi xam-xam ca euh, Paris am na ci sax ñoo xamante ni fii la ñu fekk baax ci Afrique tey ñu dugal leen ca Panthéon lépp nag seenub jaar-jaar moo koy waral ak li ñu yàgg xeex ci seen dund. Mm. macha allah xeex bi am na solo kon ñu bàyyi la nga to loolu Fatou Kiné ñu lay sant bu baax di la gërëm à tout à l'heure incha allah ñu wéyal info matin ñu jaajëfal ko bu baax Fatou Kiné dem ñëw ci leneen un jour une actu Marcel Marone la ñuy dalal